bon euh, man maa ngi tudd nu Diémé dëkk Kafountine waaw euh, léegi ni ma def pour gagner euh, damay ay combinaison laay joué ay combinaison laay joué léeg-léeg dama koy tàllal tu vois damay def Longchamp léeg bon c'est ainsi de suite noonu laay noonu laay def te yàgg naa di joué PMI nag bon xëy na tey ci temps yi la yàlla dogal ma gagné un gros comme ça mais sinon euh, depuis 90 ma ngi joué PMI donc euh, je suis pas un élève là-dedans voilà xam naa loolu moo tax yàlla mu ma mu ma dajalee lii mu jox ma ko tey quoi waaw loolu moo tax euh, kontaan naa trop. tey nga gagné montant bu toll nii. Ah. bi projet effectivement euh, euh, yi je pense que déjà li ma njëkk xalaat mooy kër quoi xam nga waaw kër ndax kër boobu boo amee xaalis amul kër moom da ngay reba tas quoi xam loolu moo tax euh, primo bi ma ko gañee rek on dirait que déjà am naa kër waaw parce que j'avais confiance que su ma ñëwee fii rek. du am tardement comme nii rek donc euh, am naa confiance ci LONASE vraiment euh, sama projet nag ci ay kër laa ko mën a def waaw ndax xaalis su mel nii euh, am naa am naa jotoon naay gagné tuuti rek mais bii moom mosuma koo gagné voilà bii moom je pense que c'est à fond li ma bëgg dinaa ko def incha allah. lan ngay wax ci jéego yi nga xamante mu ngi koy teg pour am ci fan yii yëpp daal lu mu nekk di def c'est man ma ngi ma ngi leen di saluer beaucoup. lu bëree bëri bëri ndax euh, léeg damay dégg ñu naan LONASE maye na fi ay ay ay ay dons xam nga loolu dama koy dégg loolu vraiment je dis chapeau quoi vraiment waaw mu ngi ma kontaan naa ci loolu. Cheikh Tidiane Senghor euh, nekk coordonnateur LONASE euh, ñëwoon fi tey ci suñu siège bi ñu accueillir fi ku tudd monsieur Ousseynou jéeme joge Ziguinchor nga xam ne dafa gagné ci PMU bi. montant wu 32 millions 854 mille francs fa ñu ko doon jox chèque boobu symboliquement comme ni ko LONASE euh, di defee jox ko ko symboliquement jox ko ko en vrai gis ngeen check bi donc euh, ñu am ci mbégte lool ci suñu tur ak turu directeur général Lat Diop euh, mbégte bi gën a rëy ci ni nga xam ne bi nga jégloo monsieur Ousseynou Diémé wax na li mu bëgg maanaam dañ ko naroon conseiller nan lay utiliser mais moom si boppam mu wax ci lu baax te dafa bëgg a defar kër defar ko njabootam ak yooyu donc loolu mbégte la ci liggéeyu LONASE donc ñu ci profito di wax Ousseynou Diémé ak à travers lui parieur yëpp ne LONASE ñoom ñoo ko moom parieurs yi ñoo ko moom LONASE mu ngi def kéemtalaayu gàttanam pour di gën di satisfaire euh, parieurs yi di diversifier ay produits am mais di leen jox la bonne information moo tax euh, soo jëlee PMU bi par exemple 48 euh, heures avant course bi dañuy joxe les programmes de jeu am ngeen tamit émission buy jàll podium des courses ci RTS waaye tamit am nañu réseau bu am solo bu 1700 points de vente ci réew mi donc parieur fu mu mën a nekk Sénégal bëgga a mën na déplacé wu lu dul sori am fu mu jouer ba mën a nekk ëllëg ku mel ni Ousseynou Diémé gagné donc loolu dañ ci am mbégte am na tamit yeneen. Euh, ay nouveauté yoo xam ne Lonase ñu ngi koy euh, continuer di def comme digitalisation bi PMI bii ñu jël tey nit ñi mën nañ ci jouer euh, en en ligne maanaam euh, PMI online mën nañ jouer en mën nañ am information yi ci course yi à temps en ligne ci réseau sociaux yi su ngeen ci duggee ku bëgg a dugg jouer mën na gis information yëpp mën na jouer en ligne loolu nag nekk loo xam ne dafa am solo ci dison disons modernisation Euh, de la de la politique euh, des jeux de la LONASE donc fi ma bëggoon jeexale mooy euh, bu ma féliciter encore une fois Ousseynou Diémé ba pare di ñaan yeneen parieurs yëpp ñu xam ne LONASE ñoom ñoo ko moom seen yëf la ñu approprié wu LONASE xam ne LONASE ñoom la fi nekkal ak développement suñu réew xam tamit ne lu ñu bëgg lu ñu xalaat ci luy gën a doxal Euh, liggéey bi mën nañu ko jox ci suñu réseaux sociaux yi bu fekk différentes plateformes wala ñu ñëw fii ci siège bi wala dem di seeti point de vente yi ak agence yi nous sommes ouverts joxe ay suggestions pour li gën a jëmal kanam réew euh, liggéey bi parce que liggéey bi ñun ñoo ko seq ñoom ñooy xëy na ñooy gagné ñun ñooy jox euh, ay jeux pour nit ñi jouer mais réew mi ñoo ciy bénéficier wu.